danielle Gomes ñu ngi lay nuyu. maa ngi eh, nga jiite orchestre Ayazoul nekk eh, jiite itam association des métiers de la musique fii ci Sénégal. waaw waaw tey ajjuma ji yemook eh, ñaar fukki fan ak benn ci weeru juin ñuy màggal ci àdduna si sëpp li nga xam ne moo di musique nga wax ñu rek solos bës bi lan la. waaw bu ñu xoolee fête la musique fête la musique Jacques Lang euh, en moom moo tàmbali nee il faut que fu ñu jaar daal il ñu ñu ñu ñi nga xam ne ñëpp ku bëgg a musique na jour boobu daal na ñëw musique bi daal ñu rafet rafetlu luy liggéeyu musicien luy liggéeyu technicien waaye ci après ci at di topp foofu la artistes yi comprendre que foofu c'est benn tribune la boo xam ne mun nañ ci wax seen soxla moo tax ci ñu ci bëri léegi fête de la musique dañuy ñëw def seen musique ko wax itam seen statut ni mu mel ak seen condition liggéey ni mu mel alerte nit ñi te defe naa ci loolu le Sénégal ci secteur boobu la ñu la ñu mën la ñu demee ak association des métiers de la musique ba di mën a am tey suñu loi sur le statut de l'artiste ba mën a am tey sur suñu loi sur le droit d'auteur voilà donc jour la mais jour fête la quand même. Euh, bés la itam euh, pour ñu wax ci li nga xam ne moo di euh, statut artiste bi je pense que ab loi la bi nga xam ne wote woon nañ ko waaye fu mu toll boobule loi. fu mu ne ni liggéey bi moom tàmbali ni tàmbali ko ba jeexal ko ci mois de février bi passé nga xam ne comité de pilotage. nangu na nangu nañu ne que texte yi léegi ñu ngi ñu ngi jox artistes yi protection sociale maanaam tey artistes yi loi bi may na leen ñu am ñu am caisse de retraite ak caisse de sécurité sociale ñu am seen assurance ak assurance accident de de travail comme comme liggéeykat yëpp loolu moom am na solo mais lu ci des mooy euh, lu ñuy xaar mooy signature au président bon Macky Sall jotu ko def parce que ci tant ci semaine yooyu la ñu la ñu pare liggéey bi ba ba ba valider ko. xam mhm. comité national. mais ñu ngi xaar daal que nguur bu bees bi daal que président Faye signé ko incha allah. d'accord euh, noo gisee politique industrialisation musique fii ci Sénégal. waaw ñun ñu ngi xeex pour ñu mën a am lu ñuy wax industrie musicale. xam nga koy booy waxee industrie musicale da ngay wax lépp luy ànd ak moom c'est chaîne de valeur bi yëpp. Mhm. Euh, pour ñu ah, ñun boo xoolee bu baax ñun amuñu studio léegi studio yu mag yi amatul presque da nga koy da nga koy compter euh, amuñu benn amuñu benn euh, fabrication même ay support ñun duñu fabriquer ay support de de de de musique dañu fabriquer ay support vidéo lépp dañ koy importer. ah ci bu ñu bëgg bu ñu bëggee bokk ci industrialisation defe naa de valeur boobu yëpp la ñu war a xeex pour ñoo ñu mën a nekk am suñu autonomie voilà donc euh, loolu moom euh, pour ñun pour industrialisation bi daal des na pour pour ñun mais ci lu ñuy liggéey ni ak loi sur le statut de nga xam ne tey jox na euh, artistes yi cër jox producteurs yi cër jox entreprise yi cër nga xam ne loolu yëpp mu ngi ci biir loi bi bu ñu xasee ba appliquer loi bi ah am naa yaakaar daal que euh, lu bëri moom nañ ko mën a faj dem ci benn industrie musicale daal boo boo en tout cas boo am doole. Mhm. Euh, mais lan moo tax euh, industrie musicale doxul fii wala amul doole Sénégal. parce que dañ ko comprendre man pour man ba léegi gars yi dañ suñu ci bëri dañuy dañuy foog toujours que musique gars yi dañ ciy foo rek mhm. wala bëggal bëggal nit ñi. mais il faut ñu comprendre que euh, ñu mën a am suñu étude xam ne que musique lu muy indi lu mu mën a indi comme xaalis nag la ñu mën a organiser ay festival international euh, nak la ñu mën a nañu mën a bokk ci ñi nga xam ne ñooy ñooy ñooy indi euh, développer tourisme bi parce que gars yi koy fàtte festival yi lu muy développer ci ci tourisme c'est énorme mmh. man compréhension boobu def naa loolu moo manqué c'est loolu loolu la ñu loolu ñun loolu ñuy proposer chaque jour mais il faut que volonté politique bi comprendre ne que musique defuñu ko pour ñuy foo rek mais dañ koy def pour liggéey liggéey ay nit ñi ñuy sàmm seen njaboot ñuy sàmm sàmm seen seen seen seen seen dëkk ñu comprendre que bokk nañu ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ñooy indi xaalis biir Sénégal ñooy bokk ci impôts yi ñooy bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñooy tabax Sénégal waaw kooku bu ñu ko comprendre ci sens boobu defe naa à ce moment là waaw volonté politique bi moom bu demee ci sens boobu moom euh, euh, dootuñu wax waxu euh, manque de de de de d' industrie musicale. d' accord euh, Daniel ba jamono ji bëri na ci ay artistes euh, sénégalais yoo xam ne seen musique euh, ñi ngi woy lu neex mais seen musique kenn ràññeewu ko ci bitim bitim réew ñu bëri sax du ñu mën a bokk ci yenn festival euh, yu ñuy organiser biti réew ay festival yu mag euh, lan la ñu war a mën a def ba li ni mel mu changé. waaw moom moom la <laughs> moom loolu kañ dañ koy wax mais Sénégal. Euh, ñu bëri ñu bëri ngi joué ci festival mooy ay ñoom Daara J ñoom Youssou Ndour ñoom euh, euh, Ismaël ñu fi ñoo xam ne kii moment bi may wax sax booba ba léegi mu ngi tourné ci en Europe. Mm-hmm. donc non defe naa musique bi kay moom na Sénégal fu sore. yóbbu na ko fu sore. Mhm. peut-être léegi dañu bëgg peut-être pour artistes yu ndaw yi foofu la compliqué. jeune génération bi. voilà jeune génération mhm. ci parce que mooy li ma la wax tan que structuré wu ñu bu baax artistes yi jeune génération ñu comprendre lan naka la ñuy fonctionner lan mooy chaîne de valeur luy producteur luy manager parce que manager mooy gérer carrière u artiste. nak la ñuy def pour euh, pour euh, teg seen seen morceau ci plateforme yi dans les normes nak la ñuy uti contrat euh, loolu itam buñ ko defulee buñ ko jàngulee xamuñu c'est-à-dire que defuñu ne que industrie musicale bi bokk na ci entreprise musicale léegi effectivement am nañu problème mobilité artistique il faut ñu xoolaat ñu xoolaat suñuy convention pour visa yi pour artistes yi mën a am au moins comme comme des comme des comme des ambassadeurs ñu mën a am benn benn visa d'artiste parce que bu bu bokk ci coopération yi yenn saa yi da ngay gis ay artistes ñu ci bëri dañuy am dañuy am invitation am lépp mais comme que amuñu reconnaissance en tant qu'artiste ci seen dëkk. Mhm. mel ni Sénégal. day métti pour ñu am visa parce que gars yi dañuy am suspicion que ñii dañuy dem mais bu ñu demee foofu la ñuy des. Mhm. donc loolu moom ci coopération bi euh, voilà loolu moom mais euh, bu am naa yaakaar sérieusement bu ñu appliquer lépp li statut de l'artiste euh, wax ci loi bi ah loolu buñ ko buñ ko taxawalee moom dina dina changer incha allah. Mm-hmm. mais AMS est-ce que mu ngi dox ci loolu. ci loolu la ñuy dox quatre-vingt-dix-neuf ba léegi. d'accord moo loolu loolu mooy suñu soxla parce que ñun intérêt général moo ñu moo ñu moo ñu wala moo ñu tax a jóg. Mm-hmm. voilà léegi yombul parce que li ngay discuter xam nga yow li nga am xam ci terrain bi ak li ak ñi nga war a discuter ci nga xam ne ñu ngi toog ci benn bureau am euh, euh, day yéex. Mm-hmm. yow day fekk ñu ñoo ñun ñooy gën a gaaw mais foog nga jël temps nag di ko expliquer mais entre temps affaire yaa ngi dox yaa ngi yaa ngi daw surtout ci ci monde ci ci monde moderne bi monde digital bi. Mm-hmm. d'accord mm. euh, Daniel 2008 euh, voté woon nañ fii loi euh, ci droit d'auteur ak droit voisin ndax yéen musiciens yi yéen a ngi gis seen bopp ci boobule loi ndax mi ngi porter fruit. droit d'auteur ak droit voisin que loi bi dañ ko voté 2008 la woon dañ ko voté 2008 2016 ñu am décret d'application moo loolu moo tax ñu BSDA mën a ñu mën a remplacer BSDA par SODAV nga xam ne. SODAV assemblée générale artistes yi ñoom ñoo koy ñoom ñoo koy administré voilà ñu ñi bokk ci SODAV réellement nga xam ne seen œuvre mu ngi dox parce que parfois gars yi dañuy foog ne daal boo bokkee SODAV rek boo amee carte SODAV rek war nga si war nga mën a gis sa bopp te te SODAV du def lu leneen luy collecté xaalis nga xam ne ci œuvre yi dox collecté seen xaalis léegi ñëw séddale ko ñi ci nga xam ne ñoom seen œuvre yaa ngi dox. Mm-hmm. donc ça dire que yow pour nga mën si gis sa bopp il faut que yow sa œuvre bi nga déclaré sa œuvre bi moom am mu ngi dox fet mu ngi te ñi ko ñoo xam ne képp ko ko ko koy utiliser am na lu muy fay SODAV SODAV nag léegi ci lii muy fayeeku loolu lay ñëw nag fay fay fay ay endroit yi. Mm-hmm. voilà sinon en matière brute effectivement euh, euh BSDA. ay en moyenne cent millions euh, la doon la doon collecté ci at bi te SODAV moom lu muy collecté collecté dépassé na le double un peu plus de un milliard trois cent millions par an. d'accord ça euh, musique euh, mi ngi ci ère numérique euh, li xewoon démb amul tey cassette ak CD yooyu yëpp mu mel ni xewi na est-ce que lu baax la euh, ci musiciens yi wala est-ce que numérique bi day profiter bu baax musicien bi. waaw xam nga àdduna day dox te que buy dox moom il faut ñun pour ñu mën a nekk à la page il faut ñun itam ñu ñu mën a suivre mm-hmm. ñun yàgg nañu am benn ci ci progression wu musique bi c'est-à-dire temps ñun bu ñu doon wax waxu cassette ñu ñu ñu nekkoon ci kaw ñoom ñu ngi yoon ci CD te CD maa ngi waanoon a jeex mm-hmm. bi ñëwee ci CD gars yi dugg ci ci téléchargement après téléchargement gars yi léegi ngi si streaming. Mm-hmm. donc léegi li ñu may chance ñun ak téléphone portable yi xale yi léegi xale yi ñoom ñoom ñoraat ñoom ñoo rattrapé retard boobu. Mm-hmm. mais boo xoolee ci wàllu industrie euh, léegi amatul producteur. Mm-hmm. ñii fi nekkoon producteur ñoom euh, kii bi euh, numérique bi dafa ñëw romb leen ak ak doole anticiper wu ñu ci loolu. ce qui fait def leen bett à un moment donné voilà li tey tey ñaari peut-être ñaari ñaari maison de production moo fi am. bu ñu xoolee ba xam peut-être même même peut-être benn mais amuñu véritable producteur yu mag nga xam ne di ñoo lay signer label et tout ça tey artistes yi ñoo nekk ay autoproducteurs hmm. ñoom ñooy dugal seen seen musique ci ci ci plateforme am na ñu ci ñoo ci xam ne ñoom xarañ ñu si xarañ nañu si xam ne nu ñuy demee nu muy demee dañ ci gis seen bopp hmm. waaye bu ñuy xoolee de façon générale ñu ci bëri xamuñu ne que ñu bëri ci plateforme bi muy muy Google muy Amazon muy ci GAFA yi mais gars yi kenn fayul droit d'auteur ci au niveau du Sénégal ci distribution bi duñu am ci duñ ci am benn visibilité bu mag parce que il faut que euh, nga mën nga nga mën a jaay peut-être mille stream wala deux mille stream ba nga pour mën a gagner tuuti xaalis waaw loolu defe naa loolu moo ci manqué loolu mooy en tout cas ñun AMS loolu mooy suñu sànci xool naka la ñuy def ba artistes yi comprendre muy streaming nu muy doxee numérique bi nu muy doxee pour ñu comprendre que que kii bi développement musical bi changé na système bi changé na euh, que mën nañ ci gagné xaalis bu bëri mais pour loolu il faut que ñu ñu déggoo voilà ñu màngoo ci ci ci benn objectif. Mm-hmm. comprendre ko itam. exactement comprendre ko kon comprendre ko c'est très important. Mm -hmm. d'accord euh, Daniel yow la ñu confirmer ci boppub euh, kuréel bi ëmb euh, musiciens yi ak lépp luy yëngu ci wàllu musique fii ci Sénégal nga war a amal ñaareelu mandat lan mooy doon say défi ak noo gisee jéego yi nga xam ne ministre bu ñu dénk wàllum culture Khady Diène Gaye tàmbali na ko. waaw man kay euh, bon di di di rafetlu te di gërëm ñi nga xam ne ñoo ma ñoo ma def confiance voilà mais léegi nag euh, ñun suñu suñu objectif mosul a changé depuis quatre vingt dix neuf mhm. mooy dañuy taxawal euh, droit droit ak droit des artistes loolu moom Euh, moo tax tout le temps ñu ngi ci ay formation ay information accompagnement waa artiste yi pour ñu mën a xam seen seen seen droit mm-hmm. ak seen devoir itam parce que parfois dañ koy dañuy fàtte ne <laughs> droit day ànd ak devoir euh, waaye ñun on on s'est toujours posé comme force de proposition ñun lu ñuy def mooy c'est xooluñu est-ce que Daniel Gomez moo ci voilà li ci gis lu ñu bëggee xool mooy est-ce que li ñuy indi moom man na changer Euh, euh, paysage musical bi mën na indil dara ci culture culture Sénégal mën na yóbbul Séné yóbbul Sénégal kanam. moo tax it euh, saa bu amee bu ñu amee benn autorité bu bees dañ koy bind pour ñu mën a toog waxtaan jox ko ay proposition ñoom pour parce que ñoom ñun ñoo nekk ci terrain bi ñoom ñu ngi ci bureau yi ñoom lu ñu soxla mooy se ressentir suñuy besoin ñun. pour ñoom ñu mën na ko porter ci kaw mun na ko yóbbu assemblée nationale mën na ko yóbbu mën mën ko yóbbu euh, présidence voilà euh, donc ñun li ñuy xaar ci ci nguur bu bees bi ak suñu ministre bu bees bi mooy mu mu toog waxtaan ak ñëpp xam lan mooy lan mooy suñu préoccupation fa fa ñu jëm euh, fu ñu jógee ak ak ak li ñu def ba léegi bien sûr lu ñuy xaar ñun mooy effectivement lu ñuy wax inclusion nañu na ñëpp nga xam ne ñun ñoo bokk liñ li ñu metti ñun ñoo bokk liñ si bëgg-bëgg voilà ñu xool ne que li ñuy def nii du pour ñun mais pour Sénégal loolu moo ci faible moo ci am ci am solo voilà. dëgg la euh, Daniel Gomes euh, Rewmi FM mu ngi lay sant di la gërëm. maa leen fay di leen euh, gërëm itam ci ci initiative. ci fàttali yaa jiite orchestre Ariazul jiite itam association des métiers de la musique du Sénégal.